ñëwoon démb salaamaaleykum ah, tey nag da ngeen ma gis ci fu ngeen ma musul gis tey dama sol maillot tey dama sol maillot bu ma neex maillot bi ma indi tey ci émission bi pièce d'archive la danaa leen wax lu ko def pièce d'archive mayo bi xam ngeen Bocandé dafa nekk le meilleur buteur du championnat de France Mamadou Dia nekk meilleur buteur championnat de France mais il y un autre Sénégalais bu nekk meilleur buteur d'un tout d'un tout autre championnat européen li tax xëy na bu Bokandé ak bu Mamadou Niang gën a feeñ francophone lañu di wax français di bind français di liir français maa ngi fàttaliku benn euh, présentateur journal bu nekkoon rajo Sénégal kii def journal portugais bi euh, Dos Reis la defe naa Dos Reis wala Gustavo daf ma daan wax mais vous avez un Sénégalais qui fait des merveilles au Portugal vous n'en parlez pas parce que vous ne parlez pas portugais di ma indi journaux yi muy jëlee ci ambassade du Portugal alors sénégalais boobu dafa nekk meilleur buteur d'un championnat européen ca Portugal comme bi Bocandé def en France ak Mamadou Niang ba mu ko nekkee il y a 10 ans en 2003 maillot bii la woon maillot bii la woon mu nekk meilleur buteur ñëw vacances Sénégal di ma Ablaye maillot bi yow laa koy may parce que dama la déjee sama titre meilleur buteur championnat Portugal nous sommes en 2003 cela fait déjà 10 ans kooku moo di kan moo di fari fay di sama invité tey def ak Sénégal CAN 2000 àndoon ceeg ñoom Oumar Diallo ñoom Malick Diallo euh, ñoom Malick Diop Pape Malick Diop ñoom Oumar Daf ñoom Khalilou Fadiga Henri Camara Moussa Ndiaye mi ngi ci woon ñun ñaari yoon la ñu mus a gañe Côte d'Ivoire dafa ñu yàgg neenu de ñaari yoon lañ ko mus gañe yëpp ñaar Dakar benn yoon 3-0 sur le chemin de la CAN 2000 ak benn un 0 but de El Hadj Diouf mais keroog ba ñuy dóor il y a 10 ans Côte d'Ivoire 3-0 à Dakar sama invité bi moo dugal 2 buts Fary Faye Mamadou jàll dugal benn muy 3-0 bi ñu jëkk dóor Côte d'Ivoire en match amical au niveau des équipes nationales kon fari fay laa leen indil tey mais émission bi euh, li tax mu nekk leneen ñëwoon démb la ak tey. mayo bi mayoo ma ma bi su ma lay gànnalee moom laay sol mayo bi du ma sol leneen lu dul moom ndax ba nga nekkee maire buteur danga ma ko jox mu nekk pièce d'archive far yi ma bàyyi la nga nuyu sa coéquipier yi nga xam ne yaak ñoom yéen def la CAN 2000 ak ñi nga xam ne ñi nga ca Portugal tey ji di topp émission bi. bon maa ngi sant yàlla et di nuyu sama sama sama moroom yëpp parce que c'est avec un grand plaisir nag tey père ma ñëw toog fii di wax parce que sama moroom yu bëri gëj naa leen gis am na ñu may suivre am na ñoo xam ne xëy na perte nañ sama tras mais maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ñaanal aussi ku ci ne fi nga ne yàlla defal la sutur ak jàmm. Euh, te yàlla na leen yàlla jàppale jàppale ñu ñëpp. amiin fay amiin fay kon gars ñi fari fay ngi nii toute sa carrière professionnelle au Portugal te nag la performance est celle-ci Mamadou euh, euh, Bokandé ak une fois meilleur buteur mais lui trois fois au Portugal ci intervalle dix ans 2003 ak Boa Vista ma yóbbee nekk nii équipe bu Portugal première division euh, mu nekkat que deux fois ak bois Vista et en deuxième division. en ce moment mi ngi ak Boa Vista. deuxième division te dañuy yéegaat déwén ak Boa Vista la performance et que Fary fait à l'approche de la quarantaine c'est le Sénégalais qui a joué au plus haut niveau à son âge 39 ans. mu nekk encore professionnel meilleur buteur encore cette année euh, Fary je reviens d'abord euh, en 2003 bi ngay nekk meilleur buteur Portugal booba temps yaakaar na doon xëccoo meilleur buteur. waaw booba temps nag y de très grands joueurs ànd ci Benfica ak Porto mais parce que y avait Simão Sabrosa euh, portugais xam nañ ko bu baax ñoom sénégalais xam nañ ko bu baax souvent ñu ngi koy owee Simão mi ngi actuellement espagnol de Barcelone. y avait Jardel. Jardel nga xam ne Jardel yi ku ko raw raw nga kaati. waaw looloo taxoon nag man sama sa li ma yàlla joxoon mu am euh, am kii trop. Euh, au niveau de emporté emporté au niveau du Portugal ak. waa quoi parce que Jardel moment boobu moo doon téeréeru défenseur yëpp. Barcelone bëgg ko jënd Real Madrid bëgg ko jënd c'est vrai qu'au début du championnat dafa amoon quelques problèmes mais man ma mujj ci fin bi. tebbi leen ñoom ñaan ñëpp yàlla jox ma ko si moo topp après moom mu topp. xam portugais rajo Sénégal ba waxoon à l'époque. Mhm. mu mérite de Fary il est meilleur buteur te du dóor penalty. effectivement eh, eh, eh, wax nga woon ma fàtte d'ailleurs année boobu. Ah. j'étais man peut-être ren rek la dóor pare mais ba année yi desi man man je suis je marque des buts sans sans sans. may dóor penalty sans boobu j'étais meilleur buteur sans penalty Simon ak Jardel Simon mi ngi amoon 11 penalty. Jarel mi amoon euh, su ma juumul sept ou huit penalty. waaw et man amoon penalty. daa doo doo dóor penalty effectivement daanu ma dóor penalty. parce que xam nga léeg daa gis tireuru penalty bu nga xam ne du sax tireuru penalty. Mhm. mais dafa nekk ci course meilleur buteur. ñu koy jox penalty man pourtant amoon nañu ay penalty sax mais yàlla ma bindee noonu oh, bi ma doon fubal des fois dafa am avancement bu fa nekkoon bu manqué on confiance. des fois bu penalty amee man ma jël ko jox ko. Mhm. parce que coach bi daan wax léeg-léeg ma door wala ngeen seet ku ci gën a am confiance. dama ko doon bëgg mais dama doon am yërmande ci moom parce que aussi li ma yàlla daan defal. dama doon bëgg aussi moom it mu mu dugal pour mu gën a baax. exact donc yenn penalty yi ñu amoon quelque trois. biñ ma ko joxee moom laa ko jox moom moo ko dóor dugg yow bëgguloo même buñ la ko joxee bëgguloo ko dóor bëgguma ko woon moom laa ko jox parce que dama bëggoon euh, sama biir xol li ma ci bëggoon mooy ma nekk meilleur buteur sans penalty sans dóor penalty effectivement ba yàlla defal ma année mu nekk nag ci néegu meilleur buteur euh, sénégalais yi nekk en Europe Bocandé Mamadou Niang en France moom au Portugal te nag li tax ba som gën a metti dama gëm ni championnat Portugal moo gën a metti bu France être buteur et Portugal est plus difficile qu'être buteur en France je ne fais pas de détour parce que championnat Portugal moo gën a metti tellement vrai que les clubs portugais yi ñëw Europe lañ fa def euh, club français yi euh, defuñ ko fi alors dix ans après Fary nous sommes en Mm-hmm. ren 2013 nga nekkaat meilleur buteur en deuxième division. effectivement <laughs> euh, kooku dama koy sant yàlla bu baax ak samay waajur. waaw parce que euh, ren maa ngi ko jël aussi dernière journée dernier match dernière minute laa dugal euh, sama 17e but. yàlla def ma nekk ko en en deux deux dernières journées yi laa dugal 6 buts. 6 buts benn match ma dugal ci kat dernière journée bi ma dugal ci deux buts. benn match ci quatre effectivement xanaa xanaa mooy euh, parce que gis naa benn euh, benn benn photo bu nga xamee ni dañ jox jox ñeent. benn photo ci benn journal. Mhm. ñeent xobu carte. effectivement nga nga tàllal ko. effectivement comme pour pour magnifier les cartes. effectivement loolu pour loolu la parce que les portugais ñoom ñu ngi ko tuddee ils appellent ça poker. poker poker lañ ko tuddee boo boo dugalee carte bi ci biir match ñoom poker lañ koy tuddee. poker lañ koy tuddee ay prime ak yooyu yëpp ñu lay jox moom nag la ma yàlla defaloon am ko ci ci match boobu. alors ci ci journal bi je reprends cette phrase Fari poker 11 des POIS mooy lan. effectivement mooy parce que poker 11 ans après. 11 ans après waaw y' en 2002 dama def poker à l' extérieur. waaw ñu doon football ak Belenenses ñu dem foofu ñu dóor 5 ans ma dugal 4 buts en première division. looloo tax nag gars yi di ko fàttaliwaat. et que rappelle encore le journal duello de Gera Soares. Mhm. anima euh, Gondomar. avec Ibrahima loolu mooy lan. <laughs> fer yow da nga dégg portugais sax loolu bon moom man aussi bon yàlla dafa def sutura ak jàmm ba ma mën a fubal ak sama doom. Mhm. il a 19 ans mais bon équipe am bon moom mi ngi signé en première division dañ ko abale woon dañ ko abale fii match bi dafa tamit ñun ñuy fubal ak équipe bi léegi nag coow li bëri si dëkk bi trop journaux yeeg télévision yi di ci wax. looloo taxoon nag euh, jour journaux yi bind lii si si si man ak moom. sa doom mi ngi Portugal ci yow. effectivement te en ce moment aspirant la comme professionnel. effectivement bon actuellement il est professionnel. il est professionnel dans quel club il est professionnel à Maritimo mais dañ ko abale Gondomar ah, Maritimo ah, Maritimo effectivement fi Baba fi Baba Diawara nekkoon. Baba Diawara fi Baba Diawara il s'appelle Ibrahima Ibrahima Faye. alors benn bi euh, l'autre photo dit Fari Rey euh, dos Marcadores à Norte. effectivement mooy Fary Roi des meilleurs buteurs au nord. comme ren meilleur buteur bi euh, deuxième division B bi au nord. Uh-huh. man la ko yàlla jox bon mm. loolu la gars yi bind quoi roi bon portugais noonu la ñuy def. noonu la ñuy def roi des buteurs. roi des buteurs. Euh, beneen photo bi ma intéressé ci journal bi Ibrahima num gesto de Carigno comme Opaï Fari. nos nos campos vont ser différents. waaw ah, bon foofu loo <laughs> li nga wax ni da ko liir exactement mooy bon. Euh, il a les mêmes gestes ak ak ak euh, kii mais bon ci biir terrain bi day wute quoi. même geste et le et le sens. du e, effectivement le sens de buteur de son effectivement père. de son père donc mais dans le terrain ça sera différent parce que foofu daf may contre man ma contre ko. te foofu njureel amu fa dara amu fa. voilà foofu ku nekk day day day day rayante pour boppam. gis ngeen émission Fari bi exceptionnelle émission bi ñëwoon démb la mais moom dafay def ñëwoon démb ak tey ñëwoon y a 10 ans meilleur buteur en 2013 meilleur buteur du championnat de deuxième division au Portugal voilà comment il devance et Bocandé et Mamadou Niang surtout que son championnat Portugal est plus difficile nombreux sont les clubs portugais qui sont déjà alignés en finale de Coupe d'Europe et qui ont déjà aussi gagné euh, cette Coupe d'Europe kon Fary yaa nga mais euh, pourtant avec la deuxième division ce n'est pas ton premier titre de deuxième division tu l'as été meilleur de deuxième division. 98. bi ma njëkkee ñëw Portugal parce que man ak Khadim Faye ñoo bokkoon équipe muy sama xarit. Khadim Faye sama jaraaf waaye sama frère bu baax. qui a fait Sénégal 92 effectivement effectivement ñoo bokkoon équipe bon foofu laa njëkk a jëlee meilleur buteur bi. oui ah, année boobu laa ko njëkk jël après si laa jógee foofu dem Beyremar. Beyremar bon après ak bi ma ko jëlee jëlaat ko cette fois ci c'est la troisième fois une fois en première division. deux fois en deuxième division. tu as fait euh, seulement deux clubs portugais en 13 ans. waaw trois clubs trois clubs. parce que bi ñu eggee on était à à après ma ñëw Beira-Mar Boavista am na benn club aussi ma def un an euh, mais presque un an sax presque neuf mois laa fa def dellu si Boavista. mais Khadim Faye bi ma ko déggee gardien de but au Portugal. i je me suis dit ñi ko recruter est-ce que waxuñu nga indi leen gardien. waaw man maa demoon def ay test euh, maa ngi sant yàlla di sant ndeysaan benn grand bu baax yàlla na ko yàlla xare àjjana te yërëm ko muy jagu seen moo ma boole woon ak ñoxor ñoxor géey ñoxor vraiment per doon mag bu baax jàppale ma surtout tous les plans moom ak ay parents yëpp. ñoxor mhm. géey ne ma man du ma mën def naa la yóbbu mais Maroc la bëggoon temps boobu faf nag yàlla def mu yóbbu ma Portugal ma demee Portugal def test yi test yi dox. bi ñu ma waxee góol dañu bëgg góol mais góol bi nga ñuy wax la ñuy indi. ma oo ñoxoon ne ko wax nañ ma góol mais man de turu xaadim laa wax. mu ne ma ah comme wax nga turu xaadim baax na bu gaa yi amee xaalis pour jël si ko ne ma maintenir ko moom aussi mu def lépp pour xaadim mën a ñëw fekk si ma. Mhm. dirigeant yi aussi ne ma yow la ñu wóolu sa kàddu la ñuy xaar yàlla def ma insister si. Mhm. ba ma ba xaadim yàlla def xaadim ñëw ñëw aussi def. Euh, euh, nekk sama sama f mais nekk sama tey sama xarit la. nit bu nit bu exception nit ku baax. Mhm. ñu nekk ñoo doon ñoo dëkkoon. ku nekk mënoon na am kër mais ñun dañu préféré dëkk ensemble. ba yàlla def tey ba tey jii. ak seen i soxna. effect non moom moo ma njëkk am soxna sax. parce que gis naa benn reportage bu nga xamee ni. Euh, yow wala moom. ñun yaa ñëpp waaw yéen a ànd. effectivement ñoo parce que suñu kër yi jege woon. waaw moom ak soxnaam man ak sama soxna par man euh, sama soxna ah man sama kër presque. tu es en famille au Portugal je suis en famille au Portugal man au Portugal je je suis entouré de toute ma famille quoi. loolu laa def quoi. bon xaadim aussi ak soxnaam mais yàlla defal ñu jàmm aussi même boi bi saa bi aussi bi ma fay ñëw moom aussi dafa def forcing si dirigeant yi wax ak ñoom ba yàlla def ma bi fa ñëw voilà mhm. gars yi Fary Faye ngi nii meilleur buteur du championnat portugais de première division en 2003 ma indil mayo bi mayo bi daal dama ko denc ci pièce d'archive fu sore sore sore bi may ñëw ci émission bi laa ni damay teral Fary dama koy delloo njukkal teraanga ba ma defaloon i y a 10 koy delloo gàddoo mayo bi Portugal ni laay jaw laa koy jox ma denc mayo bi dix ans après ma koy recevoir dama koy solaat di ko tiitaroo mayo bi bu ma ko kenn ñaan <laughs> bu ma kenn ñaan mayo bi dama koy tiitaroo jotu yaa ngi xool mayo bi rek <laughs> ah, ki may enregistré dama koy tiitaroo parce que kii moom pièce d'archive la fa ma ko dencoon laa ko génne tey jii laa ko soog a sol ah, pour euh, pour émission bi euh, Fary fay équipe nationale du Sénégal je disais à quelqu'un Côte d'Ivoire ñaari yoon lañ ko mus a gagné ci li ma fàttaliku yëpp mm-hmm. ñaar Dakar ci yoonu CAN 2000 3-0 à Dakar keroog yaa dugal deux buts effectivement Mamadou Diallo dugal benn bi mu nekk la première sélection de Aliou Cissé. effectivement Fary keroog am nga teraanga ju rëy rëy rëy ban fàttaliku nga am ci boobu. match non mbégte parce que d'ailleurs sénégalais yi sax ñoom match boobu lañ may fàttalikoo quoi. kon équipe baa ngi nii en mille match bi lañu mujj def. ci yoonu deux mille bi di gagné nag Côte d'Ivoire 3 buts à 0 2 buts de Fary Faye Fary Faye moo taxaw na le ci seen gauche fari fay taxaw nii ci gauche am Aliou bi aussi ci la Aliou Cissé def son premier match à Dakar ne CAN bi demul parce que Paris Saint-Germain ba mu nekkoon dañ ko ni booy dem nga wax ñu ñu seet kuñ la trouver remplaçant ci gauche Aliou Cissé di Assane Ndiaye ndeysaan moom génn na euh, àddina Assane Ndiaye ci gauche Assane Ndiaye Ousmane Diop ci wetu Ousmane Diop Tafsir Saliou ngoom Oumar Diallo moo nekk nii gardien de but ñii jonkan nii à gauche euh, ci seen gauche di baa ma nga États-Unis léegi Pape Ndiokhor Fall moo nekk nii Mbaye Badji moo jonkoon noonu ci gauche Pape Ñoxor Fall tey ji mooy entraîneur Yogo Oumar Traoré ci gauche Mbaye Badji Mamadou Diallo di consultant fii ci TFM moo nekk ne ci njonkoon à gauche kon ñu dellu ci fari Faye mi nga xamee ni tey jii moo war jotaay bi deux buts contre la Côte d'Ivoire ici en 2000 ñu gagné Côte mu doon match bu bu neex parce que dafa bari woon pression parce que ñi ngi doon waajal kaan bi. waaw et nit ñi bëgguñu woon ñu football Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire suñu Peter insisté euh, ak ñoom Laay Sarr ne il faut que ñu def match bi gars yi aussi temps wax dëgg yàlla euh, dañu amoon union parce man damay ne union bi am 2002 ngi commencé depuis 2000. Mhm. bon ñu dem match bi ñëw ñu ñëw man Aliou première sélection ñoo àndoon sax bi ñuy defar passeport yi muy sama xarit muy nit bu dëggu Ablaye. Aliou Cissé waay waay mais moo tax mu ñëw équipe nationale. deux ans après mu nekk capitaine. effectivement la ñëw. mais il le mérite sax te ci biir deux 2002 nekk na fa hmm. capitaine. effectivement mais aussi loolu kii moo ko ko may arñam ak. Euh, pastéfam dafa am mystique quoi dafa dafa am loo xam ne. dafa am personnalité quoi. loolu moom yàlla da ko ko defal. oui oui Aliou Cissé bon man gëj naa ko dégg nag. mais peut-être moom laa mujjee waxal ak ay parents euh, en 2004 yooyu je pense. waaw mais aussi euh, ak Pape Mhm. Pape Sarr aussi boobu boobu la dellu si ñuy toppatoo passeport yooyu ñu ñëw vraiment def match bu rëy gars yi ñëw mu am solidarité bu garaaw biir biir équipe nationale. Mhm. Mamadou Diallo ñu sampo xam nga nekk ci kaw. mais vraiment ñoom Omar Traoré c' était un match exceptionnel. ñu eh, def match bu baax quoi. ci ngeen dem CAN 2000. effectivement CAN 2000 aussi souvenirs yu rafet. vie souvenirs yu souvenirs yu neex parce que man kaan ba ndeysaan euh, Fadiga ñoo ñoo ñoo doon bokk chambre tout le temps ndeysaan yàlla defoon mu doon sama xarit quoi. Henri mhm. doon sama boy Henri moom suñu boy la. moom man maa doon grand quoi ci ci yu bëri Henri doon euh, Sénégal Henri nañu fexe ba mu am sans sélection. Mhm. c'est que àddina nit dafa et dëkk dafay am référence. waaw père yéen suñuy référence ngeen. ñun tey suñu génération ñu bëri ay référence lañu yàlla def na mu ñëw ba 98 il joue jusqu'à présent man nañ ko oo ñaari match mu mottali loolu ëllëg ñu koy jox exemple pour les enfants. waaw loolu je pense. Sénégalais bu am sans sélection te yàlla defal na ma lii tey man maa ngi ci sant yàlla mais moom it mën nañ ko ko defal mais loolu te da koy mérité du doon lu ñu koy sarax. wala ko dimbale da ko mérité. parce que ba léegi mi ngi dox. effectivement ba léegi il joue man ça fait des années waxuma ak moom mais lii c' que c' ko. waaw loolu moom yaa ma xamal. xam nga moo tax man la yow émission du ñëwoon démb kese. ñëwoon démb ak tey. il y a 13 ans tu étais meilleur buteur du championnat euh, de première division au Portugal. effectivement 10 ans après. Mhm. nga nekk maire buteur du championnat de deuxième division au Portugal. effectivement. 13 ans 10 2003 c'était démb. dëgg la 2013 c'était. la barkeel rek. bilaay dëgg la <laughs> mais Portugal bi ñu waxtaanee. Mhm. mus naa la ni fexeel ba gis papa yi El Hadj Diouf. effectivement. il a été professionnel ci ñëfa jiitul rek. Mm-hmm. Boubacar Diallo. Mm-hmm. gise ngeen. effectivement loolu conseil la boo xam ne père yaa ma ko joxoon nga ne ma ndax euh, waroo nekk ci dëkk ak li la fa yàlla defal sa morom papaam nekk fa te gisewu leen. oui euh, yàlla it bon loolu El def ci lu rafet par El Hadj Diouf moo ñëwoon Portugal ak seen équipe bi mu ñëwee mu def. le maximum fi mu ñëw par ñoom ñi ngi entraîné suñu terrain seen décrassage ak yooyu. mu dem gis dirigeant yi fexe na leen fexe leen ngeen wax fari dama ko soxla na ñëw hôtel waaw def moom ci boppam moo def lépp pour. pour gis la effectivement wax dëgg yàlla bi ma ñëwee dirigeant yi ne ma mais El Hadj Diouf jaar na fi nee nga nangam sangam bi ma génnee ma dem ci hôtel bi ñëw fekk fa El Hadj wax. Euh, ñëw mu ñëw et puis papaam nekk fa. Poulo ndeysaan. Mhm. suñu papa di pa père bu baax. si si mu ñëw taxaw ak ñun et puis conseil ñu conseil yu baax quoi. wax dëgg yàlla conseil yu baax la ñu. la keroog laa la laa ko gis. wax ko nag ne ko man de nag ma jéggal ndax man père Ablaye Diaw wax na ma sax war naa fexe ba gis la moom ci boppam mu ne ma oo na ba tàyyi mais man su ma xamul numéro souvent du ma jël. ma jéggalu ko ci loolu. bon ñu waxtaan bu baax bon fan nag laa foofu laa ko gisee bon euh, à travers moom ak El Hadj. et puis hmm. et puis gisee ci Fadiga mais moom ak El Hadj moom foofu laa leen gisee. foofu nga leen gisee kon El Hadj Diouf leen en équipe nationale. El Hadj si si parce que ñun suñu premier match El Hadj Diouf. Ah. équipe nationale. 2001 ah. euh, bi ñuy fubal ak euh, Benin je pense. waaw boobu lañ ko convoqué ba maa ngi <laughs> El Hadj Diouf moo la fekk en équipe nationale. effectivement moo ma fekk équipe nationale peut être nit ñi du ñu kii mais boobu man je me rappelle par ñun bi ñuy jël maillot yi sax ñun ñoo mujjule woon man ak El Hadj ak je ne me rappelle plus kan ñun ñoo mujjule woon jël maillot yi moom boobu moo doon premier match am bi mu dooree ñëw. contre Bénin. effectivement fii bi Cheikh Sidi Ba di dugal but bi. Hmm. Euh, te match boobu moo ñu permettre ñu dem éliminatoire mondial par ñun dañu dem Bénin aller euh, nul waaw bi ñu nulee Bénin ñu rouge je ne me rappelle plus Ousmane ñëw ne Fari. yow ti joué comme euh, numéro 10 avant ngay dem bi ngay nekk booy bi ñu nekk xale kaay dellu si sans coach bi wax ñu dara ñun suñu biir ñoo organiser affaire yi ci biir. coach bi ak bon Peter bàyyi leen ngeen waxtaan Peter def na kii mais ñun suñu biir. ñoo organiser équipe bi de telle façon que ñu défendre match bi reyante match bi Pape Malick gars reyante match bi Moussa Ndiaye ba match bi jeex ñun nul match bu métti stade bi fees dell ba gars nekk ci biti. Mhm. doon ñu doon ñu menacé je me rappelle doon na Sénégalais yi lu ne mais ci ndam ñu nul ko bi ñu ñëwee fii. ñu dóor gars yi 1 bi bit de Cheikh Sidi Babi effectivement mu nekk premier match El Hadj Diouf effectivement léeg-léeg ñu laaj ma kañ la El Hadj Diouf ci mhm. la àndal en équipe nationale mhm. en demi heure contre Bénin. Fary Faye vous retiendrez le nom parce que dafa nekk euh, pratiquement ci vitrine bu mag trois sénégalais ont été meilleurs buteurs d'un championnat européen Mamadou Niang France Jules Bocandé France lui fari fay deux fois trois fois 98 deuxième division Portugal. 2003 première division Portugal 2013 deuxième division Portugal Portugal fa la nekk ba tey euh, yaa ngi yaa ngi euh, Boavista pour pour combien de temps encore. bon actuellement bon euh, maa ngi Boavista renouvelé na pour pour deux ans. deux ans waaw damay ñaan yàlla rek yàlla jox ma. doole boo ko àggalee jox yaram ak kattan bi ma ko mën a àggalee. parce que mhm. man ñoom ñoo ma ko proposé. Mhm. man bëgguma woon mais sama yaay moo ma moo ma ne il faut. Euh, jeexagul sama yaay ma ne woon jeexagul. Mhm. depuis daaw daaw jéeg. boobu nag du woon dara dama kii woon nag ndax dafa metti Ablaye professionnel doo toog sa kër doo nekk sa njaboot <laughs> yaa ngi ci regroupement yi voyage yi. tukki te ñi ko nekk yëpp xam nañ li may wax quoi. dafa metti mhm. et puis bu seddaay bi ñëwee c'est a génn mais kiiwu ma ko woon pour kii parce que yàlla may na ma wér gu fan wu wér gu ma dimbale. yàlla sama yaay. est sama yaay ma jàppale ci tous les plans. moo tax man waxam du ko teggi. est ba bi ma nee nag fu balaatal rek doom am na lu des. àggale ren bi ma amee meilleur buteur bi ndax daf ci sonn. mais ma ciy remercier sama nijaay. ndax moom laa ko déjee parce que man sama nijaay ginnaaw yàlla lépp sama lu bëri ci loxoom la. Adama mi ngi Dakar. mi gi et puis moom man sincèrement meilleur bi tamit je le déjee sama nijaay boobu. Mhm. parce que tey jii amul côté bu ma jàppalewul ci lu baax. wax ma yàlla defal teraanga fii ci réew mi rek ci loxoom la jaar. na mu tuddee euh, Abdoulaye Sène Faala nag lañ koy wax ma koy sant bu baax a baax. ku tudd Abdoulaye foog mënul bañ baax. <laughs> <laughs> Abdoulaye ku tudd a baax <laughs> alors gars ñi Fary Faye lay dalal tey jii ci moom émission am tuddul ñëwoon démb kese de ñëwoon démb ak tey meilleur buteur il y a 10 ans meilleur buteur aujourd'hui maillot bi moom ko may il y a 10 ans ci à l'intention de ceux qui nous prennent en cours mooy Boavista la sol équipe portugaise de première division il y a 10 ans bi mu nekkee meilleur buteur daf ma ko indil tey bi ma koy dalal fii ci tey TFM ma solal koko pour delloo ko teraanga ma ne sol du ma sol yére bu nga xamee ni ku ma gis yaakaar ni présidence laa jëm damay sol mooy ku ma yaakaar ni defe ku ma gis defe ni entraînement laa jógee wala fa laa jëm yaa ma ko joxoon il y a far ans fay Faye mi toog tey euh, nekk au Portugal euh, def fa ay Kirama trois fois meilleur buteur dont euh, une fois avec la première division dugal 21 buts du dóor penalty mhm. en 2003 mais Fary surprise deux mille as fait la CAN. Mm. du Nigéria. 2002 mm. may seenu fari gisuma ko qu'est-ce que lu xew 2002. effectivement 2002 d'ailleurs man euh, présélection yi bokkoon naa ci. parce que ñëw naa après bi ma ñëwee merci euh, merci ku ma bëggoon la ndax merci rek mooy entraîneur bi ñëw Portugal fekk ma fa. Ah, ñëw na Portugal ñëw na ba Portugal il a fait 3 jours ak man ak sama njaboot. Metsu vraiment ku ma bëggoon la. dal ci yow. effectivement non moom mi ngi woon hôtel. ah d'accord mais on ensemble. ensemble on était ensemble mu ñëw seetaan sama entraînement seetaan sama match. Mm-hmm. bon xam sama famille. et puis nit ku nit ku baax lu man man man damay wax li ma xam rek ci nit ki quoi man ku nekk ni nga seq man rek laay wax. Metsu c'est un meneur d'hommes. effectivement te daf ma wax lu bëri équipe nationale Metsu bi ñu toogee. il m'a expliqué beaucoup de choses mais nag football dafa bu amee rek na am Coupe d'Afrique Mali bi man ci présélection bi laa bokkoon médecin bi ñu ñëwee mu ne ma man ce que a veux faire c'est yow El Hadj Henry laa bëgg a teg ci kaw damay teg Henry à gauche El Hadj à droite yow nga samp fa di a nekk seen ginnaaw moom c'était ça son souhait. moo doon plan moo loolu la ma wax te loolu la bëggoon wax na ma ko fii bi ma ñëwee équipe nationale sélection loolu la bëggoon bi may ñëw équipe nationale am le fameux match contre le Burkina bi ma yëgul woon sama papa bi ma ñëwee kër ga mu ne France man ñu ngi ma convoqué contre Algérie mais moom mi ngi bëggoon def loolu contre Algérie waaw faf nag sama ma ne ma demal ba ma ñëwee groupement contre Burkina bi la ñu mu doon match bu xaw a doy waar waaw mooy bi ñuy dem CAN effectivement te Burkina gagné ñu 4 voilà match boobu man malheureusement ma duggoon ci te bon ñooñu xaw ma leen bon ak Monet effectivement voilà c'était le gardien est que xam nga Monet mhm. mook José Touré ñoo bokk Ah, ça, je ne savais pas. Mon nañ ak José Touré Bakoroba mooy seen papa international malien. moo ne yaayam ma ko jox santam. ndeysaan moog José Touré bokk bay. mais mu doon match bu doy waar nag match boobu après bi ñu paree ba bi euh, euh, euh, Metsu def présélection bi ñuy dem Mali. maa ngi ci woon maa ngi ci woon biir mais après expliqué yoo xam ne wax dëgg yàlla bëgguma ko wax. Euh, mm-hmm. euh, télé. Mm-hmm. moom il m'a expliqué beaucoup de choses. et il a la franchise. effectivement il paraît qu'il a eu la franchise de te dire Fary. effectivement du bi ma toogee mu ne du la yóbbu ndax lii ak lii ak lii moo tax. mais moom mu ne ma je te man sama souhait moo doon ma yóbbu la yow ci kaw. Mm-hmm. Henri El Fadiga seen ginnaaw seen ginnaaw. loolu moom moo doon suweem mais nag après y' a d' autres forces yu pousse Metsu. waaw ba yóbbuwuma mu yóbbu ñeneen. loolu moom moom moom ci boppam moo ma ko wax. waaw sélectionneur effectivement yàgg na loolu. il a été franc man teguma ko fenn dama ko teg rek yàlla moo tuddul woon ma bokk. wax nga dëgg kon kànnu fari Faye bi moo nekk nii ici c' est au départ au palais de la République Abdou Diouf au milieu groupe baa ngi nii Oumar Diallo Daouda Ly Ousseynou Ndiour les gardiens de but Malick Diop Ousmane Diop Oumar Taf Assane Ndiaye génn na àddina Pape Sarr Henri Camara Oumar Traoré Khalilou Fatiga Fari fay Fari fay mi ngi noonu euh, bopp bi moo tegu ci euh, mbaggu Abdou Diouf mbaggu droite bi Abdou Diouf Moussa Ndiaye Pape Ñoxor Fall Mbaye Badji mi nga xam ne tey mooy entraîneur yego wax na leen ka Ablaye mbay Papa Amadou Ndiaye Daouda seen Salif kayta ak Pape Sidiba may rappelé ni Peter ak Ablaye Sarr ñu doon entraîneur Iba Gueye ministre des mu ngi nii ci photo bi euh, sur la gauche de ici à maillot vert suñu match contre Égypte yéen a ngi fàttaliku 1-0 bi ñu Égypte gagné au Nigéria Kano euh, ñaari bal yi nekk ci terrain ba ramasseur bi benn bi dafa nekk ci biir mu jël beneen bi sànni ko ci biir ñu taxaw di nekk benn ballon bi génn égyptiens yi euh, continuer sur la même action marqué 1-0 boobu ñu perdre Fary moo jonkan ni sur votre gauche euh, Pape Ñoxor Fall teg ko loxo Malick Diop di capitaine ici il est avec les Fadiga il est avec les Assane Ndiaye mi génn àddina Euh, Henri Camara gis ngeen euh, Oumar Daf booba temps dafay dafay rasta ah ici c'était contre l'Égypte on perd 1 à 0 et là contre le Burkina Faso victoire du Sénégal 3 euh, buts à 1 le groupe est le même Fary numéro 20 moo taxaw nale ci seen gauche ci wetu Assane Ndiaye numéro 9 Pape Sidi bala moo nekk nii kii di Ousmane Diop lu Fadiga numéro 10 Oumar Diallo moo nekk nii gardien de but euh, fële ñi jonkan Pape Sarr numéro 17 Henri Camara moo nekk nii 7 Oumar Daf 2 gis ngeen Oumar booba temps euh, jeune homme la dafay dafay resta Mbaye Badji moo nekk nii numéro 8 et gauche ci euh, faño bi Pape Malick Diop capitaine numéro 4 fari fay 20 ñu koy ganal tey jii ci ñawoon démb tey jii mook Henri Camara ñoo nekk les footballeurs sénégalais yi gën a yàgg ci terrain euh, déwén lay dugg 40 ans Souleymane Sané avait été capitaine à 36 ans mais lui est encore professionnel à l'âge de 39 ans. Mhm. fari mbaa yaa ngi pare diplôme mu reconversion yi parce que regarde Aliou Cissé. Mhm. tey jii il a l'équipe olympique. Mhm. Euh, mën nga ko fekk en équipe nationale mbaa yaa ngi pare reconversion. et puis loolu ça me fait beaucoup plaisir parce que comme je le dis euh, père man nee naa anciens dañu war a fexe. dugg ci structure yu bëri. mais nag ñun ñëpp mënuñu nekk entraîneur man c'est ce que je pense. ñii dañu war a nekk entraîneur ñi nekk dirigeant ñi nekk leen ñi ci mën a xëy na jàngiwaat tuuti dem jàngiwaat. tuuti pour mën a jàppale suñu réew. ñun ñëpp quoi mais bon man man fi ma nekkagum bon man maa ngi sant yàlla fi ma ne. Mhm. yàlla lu ma def ëllëg nag rek ma ma xam ne. yàlla loolu la mhm. fari xam nga fu ñuy jeexale mhm. Portugal nga defee sa renommée ah nekk fa euh, comme on dit international au Portugal. nekk fa international def fa li nga fa def. Mhm. Euh, mais bi ngay dem Portugal foo jaar foo jógee au Sénégal nga jógee ba fan yéen club nga def au Sénégal. waaw man euh, man maa ngi woon Casa Sport ndeysaan Casamance parce que dañ effectivement. Casa Sport ma fa nekkee man suñu génération maa ci gënoon nekk xale. maa nekkoon dama doon fóol senior yi nekk en même temps ci junior yi. waaw Casamance yi bëgg ma def ma ni seen doom. Casamance yi pour ñoom man man seen doom laa. ndeysaan te man séeréer laa. man je suis né à Doudam. seen nga waaw mais dañ ma bëggoon. ñu si ñoom Atanas. ñoom euh, Atanas Sini Diatta ñoom Zakaria Mendy maa ngi grand bu baax aussi bu ma jàppalee lu bari mhm. ñoom Abdoulaye Dari ñoom Simon Kabou. tu as commencé au Casa Sport. ma jógee Casa Sport ñëw Jeanne d'Arc parce que bëggatuma woon toog ci kër gi. Mhm. maanaam sama papa dama bëggoon reyante ji. tombé sama yaay nekk euh, Dakar sama yaay aussi jàppale ma ci loolu. Mhm. sama papa aussi ndeysaan. Casa Sport Jeanne d'Arc effectivement Casa Sport ma ñëw Jeanne d'Arc bi ma ñëwee Jeanne d'Arc def fa deux ans fekk fa ñoom Pape Diouf ñoom Akel Lamine Boub euh, ak Tony Silva. Tony d' ailleurs ñoom ñoom ñoom ñoom Moussa Ndiaye ñu nekkoon ci centre formation bi. Aldo Gentina Aldo Gentina ñoom euh, ñoom ñoom mm, ñëpp ñëwoon foofu effectivement ñoom am di fay. mais ñoom yàlla def ñoom ñëpp ak bi gars yi dem Monaco yëpp boobu maa ngi GIA. éthique ma ñëw éthique aussi yàlla defal ma fa jàmm ak sutura ma fekk fa nit ñu baax ndeysaan ma jógee éthique nag ma fa defee si la yàlla def fekk man sama yaay daan na ma wax yow xëy na équipe du la yóbbu nit lay gis yóbbu la et puis ni ko sama yaay waxee noonu la mhm. amee ñoxor gay li ma la wax jagu seen boole maak ñoxor gay ñoxor gay jël ma boole ak tubaab bi tubaab bi ne ma naa ko yóbbu mu def ay test tubaab bi aussi bi ma yóbbu test dafa ne damay koy dem seeti bu ko fekkee entraînement yóbbu ko mu fekk ma entraînement nag Euh, man kese may entraîné mu jël ma yóbbu ma def test six mois. kon bi ngay génn éthique bi ngay génn Sénégal yaa ngi éthique. éthique laa jógee. ah très bien six mois rek laa def éthique nag quoi. très bien mhm. kon bokk euh, Sénégal Casa Sport Jeanne d'Arc éthique. effectivement euh, puis le Portugal. Mhm. nga dem Portugal ban année. 96. 96 96. Fary looy tàggoo. waaw may man damay sant yàlla bu baax a baax a baax parce que ginnaaw yàlla lépp lu ma am rek maa koy sant yàlla ak yónnante beeg sëñ Touba. Eh, di sant sama sëriñ bu baax jaamu sëriñ Touba eh, ñi nga xam ne fi mu nekk vraiment yal na yàlla yokk leeram. amiin amiin amiin fay parce que eh, daf ma jàppale côté bu wàllu wu ne. est-ce que di sant yàlla sant sama yaay. ak sama papa père parce ni ñu koy defee. Mhm. ñooñu dañ ma jàppale. Mhm. sama ma jàppale. Mhm. sama yaay moom lu nit di def ci doom rek moom def na ko man. man c'est ce que je dis lu ma doon moo yaay bi ma tudd sànq. muy koo xam ne il est exceptionnel pour man. di sant sama njaboot yëpp sama sœur yi sama cousin cousine parce que man yàlla dafa def ma ma ñu ñu ñu yor famille bu mm-hmm. euh, li ma ci mën ci lu baax maa ngi ko ciy def te yàlla ma yàlla yokk ba lépp li ma leen bëgg defal ma defal leen ko. di remercier aussi tout le monde. jërëjëf surtout à vous je vous remercie beaucoup. parce que père amoo morom te yaa ngi topp sama carrière. ñaan yàlla yàlla na yàlla xeeb dool defal ma jàmm defal ko sama morom yëpp yàgg ñu fi nekk. jërëjëf Fary Faye Fary ngi nii maye bi c'était il y a dix ans ba ma ko joxeeg léegi nekk meilleur buteur moom ngeen yanool nii Fary Faye meilleur buteur championnat Portugal yenu ko indil ma ma denc ko dina bisam tey moo doon bisam bi ma koy ganale ma génne ko sol ma yow ma woon man de xam naa ne journaliste yi bootul dinaa mos a nekk seen meilleur buteur <laughs> mais bootul dinaa mos a nekk parce que bu sol maillot meilleur buteur moom foo jaar war mën taal mu ngi nii de te nag fekk ni Fary daf ma laa sol nii euh, am ci trop mbégte euh, looy wax équipe nationale. ñu ngi di ci yoonu qualification coupe du monde bi loo leen di wax. solidarité solidarité mën na yóbbu nit fu ne. moom la El nekk sa morom gënal la sa bopp. moom la El Hadj ak Henri Camara wax. effectivement solidarité na leen seen morom gënal parce que 2000 2002 li ñëwoon yëpp. solidarité la ñooñu amoon groupe mhm. yooyu solidarité dañu gëmoon li ñu def ndax ñu dañu fubal Sénégal quoi dañu xam lépp li fi ne ñi ñëw it nañu leen dugal solidarité bi ñu jàppante ndax équipe nationale tey y a y a plus de titulaire remplaçant football ñi ñi jël un groupe de effectivement te léegi ñiy régler match yi ce sont les remplaçants. exact ñooy régler match yi. c'est parce que tudduñu remplaçant. effectivement dañ leen on wax remplaçant. effectivement mais ce sont des pendants. effectivement remplaçant il faut le bannir. kon boog du vocabulaire. de effectivement ce sont des pendants. effectivement parce que ñi ci banc bi. Mhm. ils ont la valeur de ceux qui sont à l'intérieur. mais on ne mhm. jouer à douze. Mhm. Fary Faye jërëjëf. Fary Faye jërëjëf euh, yaa ngi ci établir yaa ngi établir performance buy dugg ci. Euh, ana lu footballu Sénégal le professionnel le plus âgé, aujourd'hui 39 ans, au plus haut niveau, Portugal deuxième division. Trois fois meilleur buteur du Portugal. Une première fois 93, une dernière fois, une première fois 98. 18. Mm-hmm. Mais en première division 93, 10 ans après mu nekkaat que hygiène de vie. Fary merci d'être venu ci mbégte bi te nag euh, comme ñu ngi woon ci démb léegi tey nañ dawal ba ca kanam <laughs> nañ dawal ba ca kanam qui sait qui sait pourquoi pas la coupe du monde 2014. Amin. encore avec Fary Faye. pourquoi pas. kon boog yi ñëwoon dem tey ma indi leen koo xam ne dafa nekkoon temps votre deux. xam nga su ma leen ni woon Sénégalais yi ils sont trois à être meilleurs buteurs de championnat européen. daa ngi ne ma ni oui Bokandé oui Mamadou Niang mais troisième bi du ñëw. Mm-hmm. parce que tous les jours on écoute la radio en France. on regarde la télévision il parle français. mais on n'écoute pas la télévision portugaise. On ne lit pas portugais. Et lui, ce qu'il a fait, il l'a fait chez les Portugais. Meilleur buteur du championnat du Portugal, le championnat du Portugal étant plus relevé que celui-là français. Mais c'est vrai, c'est une grosse performance. Surtout que lui, door penalty. 21 sans penalty. Mom la Fari Faydef. Retenez son nom, diguen ko soxlawaat. foo dëkk ci Dakar Mbaaw maa Mbaaw. di sant waa Sicap Mbaaw yëpp aussi. waa Sicap Mbaaw waa Sicap waa waa Fora di leen sant ak waa Ñaari Tali parce que man Ñaari Tali laa juddoo mais Sicap Mbaaw laa nekk sama. mos ngeen am journaliste bu joué à Mbaaw Mamadou Kassé. bu Soleil joué na Mbaaw mais kii euh, du ñàkk li mu dese bu ñibbisee. mu yéege mbaaw première division. <laughs> amiin far yi ay na yaay yéege mbaaw ah ci li ci des. parce que xam nga El Hadj Diouf nee na dana ñibbisi. Uh-huh. te bu ñibbisee mën na joué waat. Henri mm-hmm. Camara nee ne dafa bëgg jeexal jaraaf. Mm-hmm. mais yow boo ñibbisee. Mm-hmm. li nga dese. Uh-huh. jox ko waa Mbaaw. nga delloo si leen première. wala Fatick waa Mbaaw wala Fatick. wala Fatick wala Fatick. dana neex Mamadou Kassé. <laughs> journaliste qui a joué à Mbaaw. Uh-huh. kon ba gars yi ñëwoon démb fari fay laa leen indil tey mu dugg dans l'histoire du football par ses performances sportives te jeexagul xëy na danaa def ak moom beneen ñëwoon démb bu carrière bi jeexee yal nañ ci yàlla yóbbu fari fay jërëjëf mbokki ñëwoon démb jërëjëf a ma koy laaj à partir de 13h léeg ñu karate ci coupure courant yi léeg-léeg ñu ne ma rediffusion bi kañ la mardi 13h fari fay ñëwoon démb ak tey ci émission tey bi ci jataay bi jërë ngeen jëf ba beneen maam dafa sonnoon ci nasaraan garab guy bu meññeereen yaata du ma di fàtt di ko waaw oui segam ne